plaisir d'être avec nous. on se retrouve comme tous les matins tey nag euh, dañoo biddanti waaye ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média 8h59 mooy doog a jot euh, ñi euh, ñu doog a xëy bis bi tombé ak 31 décembre ñu defoon ko daaw ren nag dañu koy tollanti ndax baaxantal la baaxantal gi nag tey jii ci bis bi fii la ñu tànn di place du souvenir pour jeexalee fi 2015 bu ngeen fàttalikoo bi ñuy jeexal 2014 ba ni ñuy accueillir 2015 fii la woon ren itam baaxantal gi dañu fii Euh, jeexalee 2015 ngir ca kanam euh, bu ñu tollee ci 12 coups de minuit ñu accueillir fi at bu bees bi nga xam ne ni euh, moom la ñuy xaarandi alors 2016 c'est dans quelques heures loolu moo tax nag télévision Futur Média di leen gunge tey ci bis bi dinañu àndandoo ak yéen ndax lépp luy programme ci bëccëg bi lépp la ñu décentralisé ba ci journée yi sax fii la ñu koy présenté wareef ca kanam fii la ñu koy amale permanence ca kanam fii la ñu koy amalee ci place du souvenir ak yu am solo yi nga xamante ni yéen lañu ko jagleel xam ngeen ni àddina yëpp waxatuñu ndakaaru rek mais capitale yu mag yëpp Euh, muy Washington muy euh, euh, muy muy Paris tey ci 31 décembre bi daanaka seen festivité yu bëri dañu ko wàññi xam naa ci kanam dinañ ci waxtaan ndakaaru itam comme capitale yu mag yëpp defe naa dañu koy yolomal rek ndax xam ngeen ni ci 2015 bi ñuy bëgg a jeexal bëri na ay ñàkkum kaaraange yoo xamee ni am na baat bu ñaaw bi ñu gën a dégg ci at mi muy terrorisme loolu tax na ba dëkk yu bëri ragal ba tax tey ci 31 décembre bi naam dinañu béggal suñu bopp waaye dañu koy defee euh, ci ni mu gënee sobre ñun itam comme euh, xam nañu ni euh, seetu askan wi télévision Futur Média la li ngeen bëgg rek lañ leen di defaral loolu moo indi ñuy faral di wax naan ni ngeen bëggee télévision loolee lañ leen di proposé tey ji nag ci jotaay bi la ci bëccëg bi ci suba gi képp koo xamante ni rek bokk nga ci kaaru fajar gi maanaam équipe bi nga xam ni moo leen di gunge ñun ñëpp a ngi fi El Hadj Mane Mbaye Garmi moom mi nga xam ni moo ñu magal teew moom itam def vert jaune rouge bu baax ak étoile bi. ngir gën a fésal euh, appartenance su télévision Futur Média ci Sénégal El Hadj ñu ngi lay nuyooti euh, di la ndokkeel tey di bis bi mujj euh, ci 2015 bi ñu fa yéene ko jeexale fii ci place du souvenir. jërëjëf Pape Cheikh. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama jarbaat yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. Mm-hmm. di ndokkeel tamit mbokk téléspectateurs yu ni seetaan à travers le monde. Mm-hmm. rawatina tamit ñi nga xam ne ñoo noo seetaan ci sous région bi. Mm-hmm. Pape Cheikh euh, dañu daje fay fii tey ci place de souvenir mhm. ci àddina lépp souvenir la lépp souvenir amoon na fi rek ngay dégg Pape kon tey bu ñu dajee tey ci place boobule mu nekk ci jeexitalu at mi mhm. te ñi dem ñàkk fayda yóbbu leen ñun ñu fi des fayda bàyyi wuñu fi wallaahi fayda bàyyi wuñu kon sant yàlla rek moo nu war mhm. julliwaat ci yonent bi ne lanu lanu defoon tubaarkàlla yàlla may noon ba tey ñu ciy dellu équipe bi yëpp daje fi loolu nag ci sant yàlla la bokk wallaay ci sant yàlla kon ñu ngi ndokkee réew mi yëpp te ndokkee réew mi pap day tàmbale ci président de bi nga xam ne moom moo jiite réew mi te lu xew rek mooma kon ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawféex bu baax a baax di ñaan tam kilifa diine yi Pape Cheikh léeg-léeg bari na jàmm ju am kilifa diine yi wallaay ñoom la Pape bi nu léeg-léeg nga tëdd di nelaw ñu ngi seen der di nu ñaanal kon ñoom tam ñu ñaanal leen yàlla guddal seen fante sàmm leen waaye daal dëgg-dëgg équipe bii nga xam ne nii mooy GFM nga xam ni kenn mënu leen fay mm-hmm. ku ci nekk yaa ngi bay sa waar ci ni nga xam ne nii dëgg-dëgg noonu nga ko santire mm-hmm. ñoom ñëpp tam ñu ñaanal leen at mi nekk at mi nuy dugg mm-hmm. nekk at moo xam ne bii moo gën a neex ci at yi te euh, Baye Cheikh euh, dëgg-dëgg fin d'année dafa neex walaay dafa neex mbay c'est beau dafa neex c'est très beau walaay neex dafa neex dañ ko doon defee ak suñuy famille <laughs> tey fii tey ñu koy defee tey ñun ah. ñëpp tey dëgg na famille la wallaahi kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen dudal seen fan bu baax a baax di di leen ndokkeel nag bu baax a baax waaw loolu laa bëggoon wax sax ndokkeel ñi nga xamee ni ñooy doog a yeewu xam nga biig ba tey ñu ngi fanaan Kaolack hmm. euh, ñu euh, proposé direct boo xamee ñi dem na ba ci fajar gi léegi lay doog a jeex ci gàmmuwaat bi hmm. euh, loolu mooy fésal rek nii di wone ni télévision Futur Média lépp loo xamante ni événement la ci réew mi dañ ciy gunge sénégalais xam nga Pape jabaar am solo hmm. te boo xoolee ni nu doxalee. Mhm. du mën-mën. déedéet njàmbaar la njàmbaar la. parce que Pape direct dafa dafa dafa cher. wallaay dafa cher bay xaalis bu dul jeex la. wallaahi bay nga def ko ak ak ak yéene. waaye li ko jar ko jar. waaw te sénégalais yi jar nañ. te sénégalais yi loolu moo lay wan ne. Mhm. Euh, ñaanal groupe bi war na. waaw bu nu bu nu sañoon. Mhm. dañuy dañuy dañuy branché fu nekk ay satellite. wallaahi. di leen di leen génne li nga xam ne nii moom moo leen ñor. Mhm. pour sénégal yi pour Sénégalais yi bi mhm. kon loolu tey bu fekkee ne groupe Futurs Médias dafa def dafa jëf-jëf juree jooju. Mhm. def ko nag ci kilifa diine yëpp. loolu ci sant yàlla la. walaay sant yàlla la waaw vraiment daal dëgg dëgg daal. kenn mënu leen fay. ñoom itam nan nu ñaanal. doole ji yokk. rawatina nag suñuy kilifa. parce que Pape bari na lu xew kilifa yi la de. wallaay kilifa yi la mbay. <laughs> loolu nag dëgg-dëgg nañ ci bàyyi xel nag kon nag sunu jàmbaar ji yàlla na yàlla guddal fanam. amiin amiin amiin may ko wér. amiin amiin sàmm ko. amiin amiin muy Youssou na am jàmm nag waay yàlla na jàmmam yàgg. en tout cas ñun daal Sénégal lañ leen di livrer à domicile. Euh, ki ko firnde di El Hadj Oumar Mbaye Garmeek sañse bi verte beeg jaune beeg rouge beeg étoile bi ci digg bi. xam naa ca kanam président de la république euh, bu xëyee euh, dina def discours am ci guddi gi di ngeen ko mën a seetaan en direct ci télévision Futur Média discours à la nation loolee aada la euh, ci dëkk yëpp waaye bu président nag ñëpp a ngi koy xaar euh, xam naa ni euh, yéene kaay yeeg suñu ay rédaction ñoom ñëpp ñu ngi dox ndax fan yii yëpp ñu ngi leen di defaral ay rétrospective rédaction baa ngi fii Fati Dieng Fatima Ba ak ki ne Dem Ñaba ñoom ñëpp ñu ngi wàcc bu ko defee ca kanam ñoom itam bu ñu yegg see ñu jukki ay xibaar Adja Degen Chimère Ba bu yaayu Baye Cheikh moom itam ma nga ca ginnaaw di waajal moom ak ñi muy àndal ci wareef wareef bi itam fii la ñu koy amalee en direct équipe yëpp leen euh, xam nga li may faral di wax naan ci télévision Futurs Médias heure yëpp prime la yenn saa yi nga dem ci télévision prime bi guddi rek lay doon waaye ñu même 3 heures du matin dafa am solo ci ñun 4 heures du matin am solo ci ñun parce que waxtu wu ne am na ci ñoo xamante ni ñu ngi àndandoo ak euh, télévision Futurs média alors tous mes collaborateurs sont là euh, Kiara euh, celle qui nous propose tous les mardis parmi nous elle est parmi nous elle est venue ce matin en famille bonjour euh, bonne année. Bonne année à Bon, bon. Ma cousine. Voilà. Mon cousin, comment tu vas? Très bien, et toi? Tu as vu ce matin, je t'ai amené toute la famille. Ah c'est ah oui. normal parce que c'est la fin de l'année, la on le fête en famille, voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je dois dire que grâce à ce vent, les Sénégalais vont découvrir comment je me lève le matin. Normalement, c'est comme ça, les visages. Voilà, c'est la même chose. Par Sans contre, maquillage, ni ah bon, rien. Le maquillage, voilà. quand même, mais la coiffure, c'est ouais. comme je me réveille, un peu comme ça, c'est le, le vent. Voilà, c'est le vent. Alors, on parlera avec toi tout à l'heure, on parlera ah. de ce que tu comptes proposer aux téléspectateurs durant euh, 2016. Ndeye Senoubo moo ngi toog eh, ndey seen bu Zeyna mooy caatu kër gi waaye léegi dafa dem ba li ma ne ba démb eh, benn benn karaw bi ma dese da koo bëgg dindi te du ma ko nangu <laughs> yow 2016 bi ba ma moytuwulee buñ ci duggee ah. <laughs> ah waaw bàyyi ko ndey li ma ko xamal sax du ma ko wax ci télé bi Faba Thioune mu Matar Seck. <laughs> loolu laa tudd. Hmm. nuyu tamit euh, téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun dañu seetaan tey nag horoscope amul Facebook amul météo amul dara amul dañu ñëw rek ngir saafonte yéen souhaité leen une bonne et heureuse année 2016 fas leen wax rek tamit nag lan la ñu euh, ci année bu bees bi nga xamante ne dina tàmbali ba quelque chose. voilà àndandoo ak sénégalais yi rek àndandoo ak euh, fépp fu waay nekk ah ak yéen pour gunge leen ci suba gi ndax tey jii le 31 décembre c'est dans quelques heures Maymouna Gueye Bambalo. Miss économique droit fajar gu jot yaa ngi ciy gunge. Pape ah. Cheikh ma lay nuyu sama mag ju baax ji. di nuyu ñi ñuy seetaan di leen. souhaiter xale bu juddoo gi nag ma siré <laughs> waaw waaw waaw. fekk ak maam Ndiaye doon mënu Moussa mi ci Touba. ak a juddu ah dafa fort de mooy borom ngay deli bàyyi. <laughs> waaw parce que maa ngi kontaan vraiment man dama naan su ma yàlla bëggee na ma bàyyi ak yow vraiment parce que da nga nekk ku baax yaatal ñu. donc vraiment ñu nekk ay xale nga tette ñu lépp lu ñuy def yaa nekk ci ginnaaw même bu fekkee nit ñi duñ ko gis donc ñu am mbégte daal di di hmm. bokk ak yow plateau bi donc si kanam comme ni nga ko waxee ñun ñëpp dinañ wax lan la ñuy pareel téléspectateurs yi pour année 2016. voilà ñun ñëpp a ngi ay Rokia Aydara euh, Fama Thioune Mamadou Ndiaye ñun ñëpp ñoo leen fa yéene gunge tey jii ci euh, suba gi alors li ñu leen di njëkk a wan mooy euh, dañoo dajale rek def compil bu tuuti tànn ci yenn moment yi nga xamante ni ay moment clé la ñu ko tuddee ci yeewu leen 2015 bi laataa ñu koy jeexal naam sax fàtte xaju fi waaye tey man ak ñi ma àndal ñoom Pape Samba Thiam ak Pierre Da Silva dañ leen bëgg a wan yenn ci ay mbir yoo xamante ni marqué nañu durant 2015 Alfi ginaar gi laaj nañ ko sànq ndax dina ñorom déet waaye nee naa ñor ñor euh, mën naa ñor daal fileeg 11h. <laughs> waaye li nga def nag tey tegoo ko fenn ca kanam nag bëgg naa euh, parce que tey euh, équipe bu yeewu leen dañoo dem ci seen 31 ay rob yu doy waar yoo xamante ni man xaw ma ñii fan lañ jëlee seen xeetu rob yi yéen daal bu yeboo seen i jëkkër tey balaa ngeen di ñibbi ñu ku nekk ñu ñu ñu teral ma yi rob donc Pape Cheikh nuyu ay rob yu am walang buubu ñuy seetaan xam nga lépp yow yaa ñu ko sant dugg si ma yooxu mais yow yaa ñu sant waaye yàlla teral na seen jëkkër rek <laughs> donc Pape Cheikh soo ma wóoloo rek xam nga ginaar yi dina ñor waaw ndax beurre Sofia soo ko utiliser ak jonge uh-huh. ak euh, xeetu produit Sofiex yi donc wóolu naa sama bopp xam naa ni ginaar yi maa ngi koy soog dugal mais léegi bala ngay pare rek ma indi la ko bien cuit et bien mariné xam nga tàngaaj dina bët na euh, bëggoon naa duufal sama bët tuuti ah. ginaar gi mënoo ko ibbi ñu ñu gisaat ko ni mu lemoon noonu. Pape gis nga ni ma leen rangalee nii rangalee. xanaa xamoo ci lekk yëpp ginaar ci gën a fuuy. waaw moom ñoom nag ñooy. xam nga ginaar bu congelé. ñoom ñooy staru boo ko dugalee ci frigo day képp képpe noonu rek. mais ñoom tey ñoom ñooy ñoom ñooy boo ko jëlee boo ko décongelé même boo koy saaf. Ah. day relax. day relax bu demee ba ñor ginaar boo gën a jël moo gën relax ci ci ci ci lekk yi. <laughs> donc ñoom ñoom presque ñoom ñooy staru jour bi Pape Cheikh. moo tax tey matandu yu ndaw yi nga xam ni dafay xaw a mel ni kokkale pour cuisson bi parce que tam euh, plateau la ñu nekk donc mariner naa ko def ci sama beurre sofia def jonge def quelques herbes herbes aromatiques donc dama koy taal rek def ko 250 degrés d'ici deux heures de temps xam naa ñuy pare dina fekk euh, mu ñor incha allah voilà parce que sinon am naa fi yeneen yu baax tam yoo xam ne boo ñëwee rek ma wan parce que li ci neex mooy ça c'est une très bonne idée. tout à fait euh, euh, idée idée def ay ginaar yu baax dugal ko ci four. waaw piqué ko roof ko def ci yu baax. def yëpp ay euh, ay xeetu idée nga bu la neexee nga pan ko. bu la neexee nga rôtir ko bu la neexee farcir ko. Uh-huh. donc juste rappeler que poulet rôti soxlawul ñu koy maanaam ñu koy muusal. parce que boo ko muusalee da ngay perte effet rôti bi nga xamante ni four bi daf la ko war a jox. Uh-huh. maanaam da nga war a jël ginaar bi ni mu ñorulee mariner rek enfourner ko donc moo tax moom la ñu moom la ñu tàmm def ko am na nag ay secret yu nekk ci biir. d'accord parce que poulet surprise lay nekk. donc su ñoree. <laughs> <laughs> surprise surprise surprise nga ko roofee. <laughs> su paree rek dinaa la wax dinaa la wax lan laa def ci biir. jeex na kon mbokk yi ñu njëkk woon euh, best of bi euh, best of yeewu leen 2015 pour yéen téléspectateurs yi itam El Hadj euh, damaa mbapat ay enveloppe yoo xam ni bugguma cee sori. ay enveloppe yu duun yoo xamee ni bu ci nekk daal bu ci nekk daal na lu baax waaw xam na maa ngi ciy ñëw ci kanam ngelaw li ngelaw li nag mu ngi may bëgg a rey. na lu fi xal nag. ayca <laughs> ñu woon leen best of yeewu leen 2015 on se retrouve juste après tey le 31 décembre. Sénégal TFM Alfi tey def ñuy proposer pain léegi dafay waxtaan ak caméraman bi euh, petit euh, petit fekk ko muy dër patam mu ne ko ah Alfi sa affaire bi dëll na de Alfi ne ko non dafa dafa war a kii dafa war a tàcc alors pourquoi euh, euh, pain euh, raisin ñu koy defee ak affaire bu tac au lieu bu dëll qu'est-ce que petit <laughs> veut comprendre ci ni ñuy defaree li nga xam ne ni moo di pain au raisin ou pain ou pain raisin da ngay da ngay sol mbuus bi ba pare après nga dugal ko noonu pour mu gën a comme ça nga mën ko dagg comme il faut non mais c'est ça j'explique lu am solo ah oui. <laughs> oui non mais franchement. non mais wax dëgg yàlla na léegi le temps que ma koy ma koy def ci frigo Pape Cheikh xanaa bàyyi la nga yegg. man fi laay toog ba mu jeex ba mu bàyyi. di nga ko dugal di nga ko génne sama kanam may xool. suma sañoon te maam. <laughs> alors d'habitude je prends mon téléphone ma bës benn woy ah par exemple woyu Fatou Guewel laa jël fan yi bii laay bës yenn saa yi sax ma sukkal ko <laughs> <laughs> damay di ndeysaan di jongal jigéen dafa metti dafa metti tànk nag amoo ku ko dund walla nga gis ko teg ci sa bët doo ko xam parce que yéen peut-être que da ngeen di nii rek mm-hmm. mais tey boo nekkoon ak nit koo xam ne dundu na ko mm-hmm. ça fait mal mais dama leen di ñaan bàyyil jooy yi bi am solo voilà parce que li nga wax li wax dafa am solo normalement rasay ñaata mètre lay mesurer kon. ah non je sais pas je l'ai jamais mesuré. est que mën naa ko ñëw mesurer léegi. non mais allez je mesure les amuloo centimètre amuloo centimètre. ay ma bàyyi am sama loxo centimètre la bàyyi ma mesurer. non attends xam mètre fan la. ah mètre fan mètre fii la man normalement mètre fii la non mètre fii la. fii ak nii Pape Cheikh. ba fii léegi voilà waaye ñu seen loxo ba ay waay di nga tas ko affaire jàmbur. amul problème. non Pape est-ce que du caat. jëlal bi si suuf. voilà xaaral ko rek. manqué na benn rasta Cheikh Lo un mètre aha ibnu abdallah ya xayru qurayshin bull bi aha li yàlla bind lépp dafa bari ah. Ah. waaye looy dégg ak looy xalaat yàlla ko bind ci leeru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xoola yàlla bindul dara pour moom yàlla li mu bind lépp ngir Seydina Muhammad eh, eh, eh, aynu naimu ayni wa ma xalaqa rahman aha aynu naimu naimul ayni billahi ru'yatuhu dégg nga dégg nga yawma tahaabuni fi zillatal qidami nee na mooy jëmmi xéewal jëmmam rasulullah yaay kii nag kan la ah kii sama xarit la nag kii sa lan ji bëgg yaayam bëgg ay magam <laughs> yaay Ah. démb sa doom ji anniversaire am la woon. Oh, on n'a pas pu lui souhaiter bon anniversaire. donc on s'est dit ce matin message bi nga ma wax démb pour ma wax ko ko nga waxal koko ko parce que nettali ci làmmiñu borom. <laughs> loo bëgg a wax Alfi mi nga jur yaay parce que. li caractérise Niagas c'est sa liberté comme moi quand j'ai parlé de woy cukku naan cukku jóg si lal bi fuddi ubbi bis bi dugu bi dugu ëpp xam nga wax ne sa assuré daara ji yu mag dama bëgg ngeen defal ma benn affaire ah ngeen micro bi voilà yow ak yore nga micro léegi defal leen ma benn benn euh, cover daara daara ji ma dégg yéen ñaar s'il vous plaît. J'apprendrai ce qu'est le bien, j'apprendrai ce qu'est le mal. ma nettali benn anecdote ci Fada Freddy xam nga bi may nekk école uh-huh. doon mu jënd livre heure bu ma sama papa joxee rek moom jënde ko ay dàll uh-huh. am benn xale bu jigéen boo xam dafa bëgg uh-huh. nekk ci biir man xaw ma noo ba <laughs> mu topp ma topp ma topp ma xoolal ba coow li egg prince ci principal non mënu ma daal gis photo Fadiga bu mu solee kab rek ma jënd ko dóor ko <laughs> man nu bii moo gën a nice bi da cee am yaram ma ne ko en plus <laughs> waaye pointure bu nganda laa ñëpp ma xam. wala bogus wala bogus bogus bogus bogus yee. <laughs> wala bogus. <laughs> wala bogus wee. wala boobes yaa ok man may gaynde laa damay dégg samay lyrics boo déggee ma koy wax dama koy teg ci tempo bi buñ ma joxee bit bi ma jël sama ay lyrics man maa dàq hip hop days maa see dàq rap fata man damay def rap bu <laughs> hardcore dama ko ciy teg ba mu tàng te ni ma ko tegi parce que damay dégg tempo bi ma koy dóor ci lyrics yi boo ma joxee bit bi boo ma joxee bit bi تعجبون خويتك دار تسلو ممو بوري لا دقام جولينغا taalibe je dis il faut mettre la musique nous on danse voilà rapidement voilà mettez la musique nous on va danser avant la revue de presse allez on va hop hop Stop. Naka ba? Yëngalal yëngalal. am ci demande aussi est-ce qu'elles peuvent assurer leur mari. bon xanaa ma laaj ko expert bi mais bon nee na lépp loo xamante ni daal sa propriété mën nga ko assurer doo. mais mën nañ leen assurer par défi. parce que yoo xamante ni dafa dem vacance Casamance. Euh. mais assurer wu jëkkër rek quoi. ñu yóbbaale ko rek. bonjour Pape Cheikh. naka suba si. Seku Elay Tuuti. Tout le monde m'a demandé hier, c'est quoi cette histoire de Sekou et de Tchouch Je leur dit, il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter à la télé. Parce que la télé, c'est la télé. <laughs> Euh, yaay. Ah ah. moom damaa bëgg mu ñàkk ji sax. day ñàkk. na waaj waaw dama koy jóg. waaw mais ñaata ñàkk nga ko war a ñàkk ak ñaata yoon fukki yoon. Ah? bëgg naa bëgg naa bëgg naa mu ñàkk la. fukki vaccin xajul ci Viviane gis nga Viviane ni mu toll dimbale ma rek. fukki bi man ñoo ñoo gëma ci Viviane de. ah maa ngi ci Adja Ndeye Soxna Mbuub. ah moom bëgg naa mu ñàkk bi dama koy yóbbu. Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax euh, tàggat yaram tey euh, euh, sa rubrique bi nga xam ni moom la ñu jagleel tàggat yaram nga nga gënal ma nag bu baax juróom-ñaari Malal Junior Diagne <laughs> bi nga fi nekkee ba tey man ci lay comprendre sport ah vraiment tay fi Malal nekkee Malal mi ngi seetaan de Malal Malal mi ngi seetaan de Pape <laughs> xoolal jarbaat bi jarbaat bi saa yu ma tendance Malal Junior xanaa xam nga tendance dafa ci entreprise janvier c'est une date évidemment même bu dara amul d'abord date la waaw te euh, at mi yëpp benn date lañ ci tànn mu nekk datu at bi mm-hmm. du premier janvier c'est pour ça qu'on l'appelle jour de l'an mm. maanaam professeur en date. mais dégg naa da ngaa dofoon. avant nga dugg studio il paraît que da ngaa dofoon. waaw xawoon naa maanaam àll nañ jàpp ne àll de. yow loo koy défendre Mado. défendre ma ko dafa def rek li mu wax. mais moom leen dafa dofoon. déedéet doful àll. yow yaa Carlou D. waaw man maay Carlou D yëgoo loolu. mais ci di problème bu dof bi duñ ci wax ba pare. dof bi moo am. yow àll ma doon expliqué na la ko. bàyyi ko rek mais yéen yéen a tudd Carlou D. proposé comme best of 2015 euh, euh, yeewu leen première matinale du Sénégal grâce à vous mais grâce ak équipe bi nga xamante ni euh, moom laa ci àndal fajar gu jot lundi ba jeudi vendredi ngeen àndandoo ak Alaaji Assane Gueye nga xam ne ni ñoom la àndal ci plateau boobule en tout cas on vous on vous je félicite équipe yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey fajar gi El Hadj Garmi wax dëgg yàlla sant yàlla rek sant yàlla rek. yeewu fajar dafa dafa nekk loo xam ne lii c'est délicat. yeewu fajar rek dafa délicat. am na ñoo xam ne mënuñu ko. déedéet. buñ la ci yarul doo ko man déedéet. moo tax euh, ñu bari sax dinañ may demander. Mhm. ne ma dëgg-dëgg ndax Pape Cheikh dinañ nopp. <laughs> wallaay. xam nga moo tax boose rek moom solo. wallaahi. kon ñu ngi la ciy ñaanal bu baax a baax yàlla dëgëral la. amiin jàppale la amiin bay amiin te Pape euh, bari na luy xew ci nit. Mhm. su amul passion bi du ko mën a def. Mhm. su nekkul ci moom à l'intérieur mm-hmm. parce que looy def te yëguloo ko ñu ñu ngi ko proposé du ko yëg mm-hmm. Mm-hmm. kon il faut addina bi yëpp sénégalais yi euh, yokk la ñaar parce que yeewu leen dafa dafa nekk facette boo xam ne facette bu am solo la. te bi ko créé ak léegi gis nga ñeneen di ko créé. te nit ki lépp lu muy def ñeneen ko rey xamal ni lii. da ci sant yàlla daf ci war a sant yàlla. Mm-hmm, mm-hmm. ba pare nag di def facette bi nga koy defee. Mm-hmm. loolu ci sant la bokk. wallaahi kon daal dëgg-dëgg sénégalais ñi ngi lay ñaanal baax. nga dëgg soo gisul nag pap <laughs> xam nga li may faral di wax rek lu jëm ci euh, matinal mm. Mamadou a Ndiaye ngi yolleeku na leen nag Mouhamed Mouhamed Ndiaye ma nga yolleeku na le ma nga yolleeku te daa war a yéeg léegi ñëwal kaay kaay kaay kaay bàyyil yolleeku de tey la 31 ñëwal euh, li li may faral di wax naan euh, euh, programme programme télévision bu dee bu dee kër la matinal bi mooy salon bi salon ci la ñuy recevoir gan yi ci la ñuy dalal kilifa yi donc yeewu leen euh, ci programme mu télévision Futur Média bu dee euh, programme mu télé bi kër la euh, yeewu leen bi mooy suñu salon moo tax ñun ñëpp ñuy mobiliser wu di leen gunge fajar day fekk ñu taxaw ñu jóg pare suñu ay éléments ak suñuy baax pour gunge ci téléspectateurs yi ak fu ngeen mën ci nekk donc yooyu yëpp yéen yéen ñu ko jaral Kiara très rapidement avant que vous ne quittez le plateau un message pour téléspectateurs yi beaucoup de surprises comme on a hier pour 2015 avec, avec euh, parmi nous Voilà, comme euh, on avait un peu dit hier, euh, ça a été un parcours qui dure maintenant des années. Donc euh, l'idée, c'était celle de mettre les Sénégalais face à leur société, mais vu du point de vue des étrangers et pas seulement des Sénégalais de la diaspora, et connaître des gens, parce que euh, tu l'as dit souvent, je suis sociologue. en général, j'utilise euh, une méthodologie, c'est les histoires de vie, à raconter les gens, parce que je crois qu'à travers les expériences, les gens peuvent comprendre mieux, se mettre euh, dans la peau des autres pour comprendre ce qu'ils vivent. Donc, pour l'année qui suit, euh, j'espère encore de rencontrer de nouveaux communautés étrangères. Et, et nous, nous qui sommes sur le plateau et les téléspectateurs qui nous regardent tous les matins, euh, on a, on a, on a, on a la, les, les mêmes chances qu'ont vos élèves. Voilà, voilà. disons, disons voilà. ça un peu plus simple. Ils comprennent à, à l'université, mais nous aussi, sur le plateau, nous comprenons beaucoup de choses grâce à, grâce à cette rubrique. Ouais, parce que je pense, tu sais, en tant que enseignante, que parfois on associe euh, euh, tout ce qui est apprentissage à une pédagogie très ennuyante, mais je pense qu'on peut apprendre en s'amusant. Tout à et fait. donc ça c'est l'esprit un, un, petit peu de Yaoulen en Comme général. on le fait avec toi, oui. Voilà, et sont parmi nous. Et donc parmi nous, donc voilà, j'espère euh, de rencontrer de nouvelles communautés étrangères qu'on n'a pas encore connues. Tout à fait. Et de nouveaux gens qui puissent nous raconter leurs histoires pour pouvoir essayer d'avoir un point de vue différent. Et, et voilà, et donc euh, pouvoir aussi que vraiment le Sénégal a été et et sera toujours un point euh, des rencontres de gens, mhm. euh, un lieu où les gens arrivent, sont des passages, restent, et de comprendre aussi l'importance que la diaspora a dans, on le disait hier, je le disais hier, dans, dans tout ça, parce que vraiment, c'est les Sénégalais qui sont à l'extérieur, mhm. qui, avec leur passion mhm. euh, pour leur culture, leur pays, leur tradition, euh, ils donnent la curiosité aux gens de venir euh, voir ces pays, et beaucoup de gens, je ne sais pas vraiment, j'ai doit encore découvrir mmh. les secrets du Sénégal. Mm. Parce que moi, une fois par semaine, je me dis, je pars. Parce que <laughs> vraiment, il y a des moments où aussi euh, c'est difficile. Là, difficile, Mais ouais. il y a quelque chose qui te tient ici. On mm. a fait le maraboutage, je ne le sais <laughs> pas. voilà. <laughs> je sa le sais pas mais c'est sûr que dans ce pays dañ koo dëj dañ koo dëj euh, dañ koo liggéey pour mu toog dañ koo dëj c'est le marabout waaw c'est le maraboutage mais <laughs> waaw waaw quand même elle devait faire des ah, offrandes c'est vrai ah, tu ne pars ah, pas tout seul Ah, tu as mis du lait. Attention, Ah, c'est une Sénégalaise de. <laughs> Yaayu Mamadou Ndiaye. Moi, quand je prépare à manger, parfois mon mari regarde quelque chose. Ah, il faut s'intégrer dans les pays. Quand même, c'est normal. C'est normal. mais il qui est différente par rapport à beaucoup de C'est vrai que c'est ce qui fait le charme du, Sénégal, quoi. je dis, je me suis vraiment liée. Je pense qu'on euh, on hier dans un débat sur Internet. Je dis, je ne suis euh, ni sénégalaise ni italienne. Je suis fière, d'être sénégalaise et fière d'être italienne. D'accord. Ben merci en tout cas. Merci Voilà, on embrasse euh, toute la famille hein. Merci et à l'année prochaine. Inch'Allah. Faites la fête ce soir hein. Voilà, obligé. Merci Kiara. Il faut il faut faire la fête et ça bégal leen seen bopp El Hadj ah euh, asgor nag day féexal xolam nag. xool dañ koy féexal euh, as gor day teral boppam dem ba tey maa ngi lancé message boobu mais bëgg naa nit ñi tey ñu teral seen bopp nag. éviter euh, festivités yi ci dëkk yëpp du Sénégal rek ah. Mm. Euh, c'est pour éviter que nit ñi mer euh, naan lu tax ñu tere feu d'artifice ak lan moo tax ñu tere groupe yi ci place publique yi dëkk yëpp la fii ba Paris. Mm. dëkk mm. yëpp dañoo tere yooyu pour rek gën a sàmm nit ñi ak seen kaaraange mais ku ci nekk fa nga ne. ca boor ba nga toogee na nga féexal soxol nag. mais Pape Cheikh ñun dans les temps. Mm-hmm. sunu masaana ak sunu masaana reer ba pare. Mm-hmm. dañuy defal meew meew la ñuy def dañuy def. waaw mooy lay mooy lay maanaam def waaye ni blanche walaay walaay. du ñu génn kër gi. <laughs> te xam nga xam nga sax loo ci xamul. waaw euh, tey jii bëggoon <laughs> bëggoon naa ñu def euh, ñu def concert comme ni ñu ko doon defee daaw. mais euh, dama bëgg def option wu nuit blanche. waaw maa ngi maa ngi xool ak ak ak service programme bu télévision Futur Média. ndax lu ñu nuit nuit blanche ci guddi gi. laa ilaaha illallaah Baye Cheikh bu ñu ko defee day gis lu fort. <laughs> dekkal solo. waaw mbay bu ñu nuit blanche kuy meew meew bi. Ah, ah man de Baye Cheikh yow di nga ñëw meew. kuy leelee bi. waaw kuy leelee bi. ah meew meew parce que meew meew dafa rëy. même ñi ci kër yi ñu ngi leen di wax ñu puluf ko parce que xam naa ci ci ci ci ci ndimbalu El Hadj Ban gar mi comme nu magal dañu koy puluf ba ca kanamee ji fi jaafaa jëf ca ka mu mujjee tombel koo koy meew meew bi. mën naa nekk si daat mën naa nekk buuf xaw ma kan moo a meew meew mi nag. <laughs> parce que yow yëpp bëgg bëgg ma meew meew mi la. barki Serigne Touba ku turam génn ku turam génn ca kanam ay billets daa koy tirage ku turam génn mooy meew meew mi te doo wax xam nga ñu animateur bi dañoo bëgg a wax di dóor waaye ku ku turam génn yaay meew meew bi dañ lay tag ca ba ngay lee bi <laughs> te loolu Pape xale yu ma <laughs> waaw quand même. bi dafa nekk bés boo xam ni. <laughs> Uh-huh. Euh, comme. di exil Ndiaye Ndiaye. li xew ci Sénégal yi rek. Eh, eh, li xew ci yeneen eh, yeneen pays yi moom moo xew dëgg-dëgg moo. Sénégal wallaahi. te xam nga sécurité dara fayu. balaay dara fayul sécurité. te nga toog ak sa njaboot. ngeen lekk naan. Mm-hmm. def li ngeen war a def. Mm-hmm. day dalal xel wallaay am na am na loo xamante ni may euh, euh, Maymuna maa ngi ñëw ci yow léegi xam naa ni yow tamit yàkkamti nga torop ndax madame mooy madame ñàkk jot euh, damay damay seetaan bër ki di di am anniversaire bu amoon ci seen kër ñu defal surprise kenn kuy anniversaire après famille bi yëpp toog di waxante lu baax ba ñëpp jooy yooyu dama koy bëgg ci famille yi ah di waxante lu baax de temps en temps ku ne di wax di gërëmante reconnaissance yi nit ñi am ci nit ñi ñu koy génne nag de temps temps loolu nañu koy def xam nga ñun fii Sénégal amuñu eh. culture papa naan la je t'aime yaay naan la je t'adore ñuy kottante di raayante ci tubaab bi dañu koy gisee et ça a tellement d'importance eh. toog de temps en temps en famille fàtti ku ne ku ne wax reconnaissance bi nga am ci sa morom eh, Pape Cheikh bu nu xewlee nun géwël yi waaw waxante lu baax nag wallaay wallaay yooyu dafa neex te wax bay nekk intérieur day nekk wax boo xam ne bii waxu dëgg lay moo tax géwél ay ay royukaay dëgg lañu ah dëgg la loolu de wallaahi wallaahi ko fi bàyyi ngërëm ngërëm ngërëm gu sax rek saa yoo ko waxee nit sax ñu ne la yëfi géwél la waaye géwél ñooy ay référence la bokk dafa neex dafa neex dafa neex dafa neex dafa naa ba ci borom xam-xam yi sax xadara yi ñuy def ci jàkk yi di ko def yenn saa yi ci ëtt yi hmm. yooyu xeetu euh, xeetu baax baax la yoo xamante ni ba ci yonent bi da koo bëggoon daan dajale bu buñ jullee li mu oustaz Pape an nettali dajale dajale saaba yi mm. dajale dajale ay ay ay nawleem ñu toog waxtaan def seen xadara waxante lu baax gërëm suñu borom gërëm ko yaa ma li lii yaa ma may ah. maa ngi lay gërëm mais ku santul ni doo sant yàlla déedéet mbay déedéet foo sante foo sante ni rek xamal ne yàlla yàlla d'accord na wallaahi te àlaaji Abdou daana wax ne daal dëgg dëgg daal nit daal day wax lu baax mm-hmm. te baax dafa am solo bàyyi baax dafa am solo cey mbay ku ne ci leneen lu dul mbaax lu ko gën mbay <laughs> man de gisuma ko xanaa gis yàlla baax rek ku ko gën baax rek daal à part lu gis yàlla xanaa mbay <laughs> Bijou Ndiaye fekk si nañu ci plateau bi xale yëpp a ngi ci ginnaaw di capp-cappal euh, tey daal dañ leen bëgg a gunge li ko tàmbalee ci suba gi euh, ba ñu toll ci li ñu tuddee douze coups de minuit seeni rob nag baax lool daa buubu ku ne meebu ñoom ñëpp ku ci nekk di nga défilé ca kanam parce que très envie nag euh, yéen ñii seetaan ngeen duufal seen bët li ma ne sànq rek euh, seeni boroom kër nag euh, yàlla teral na leen waaye tey gëm naa ni baa ngeen nit ñi bi ku ne di nga ku ne di nga naaj <laughs> di ngeen ma yónnee de lu leer laa leen wax bienvenue. ñun suñu bos egsi na. seen bos fan. biñ la ne maa ngi bi. xam nga ñii luñ may def pour ma ñëw passé ak ñoom week-end pour wéttali leen dañu ne pare nañu pour fay ma. damaa neex nañ ko ko. mu ne jotu ko. dafa nga xaalis bi li nga ñëw vendredi. bis Ndiaye ak jëkkëram. ñoom daal dañ may fay pour ma leen di weekendal def ma kulun rek. moitié bi beneen moitié bi bu ñëwee ñu jox ko mois bu le passé dafa lañ ma contrat wu un mois. samedi su ma paree ndaanaan rek saa yoo ma déggulee ba paree ndaanaan rek. xam nga ma nga fa. <laughs> naa ko bis soo <laughs> bis soo. c'est moi wala ngeen jàppee ma kulun. déedéet dañuy waxtaan rek. <laughs> Ah. xumbal kër gi damaa neex waaw ah, gis nga. bienvenue. merci beaucoup Tey, bonjour tey on est le 31. waaw ouais, 31 bi laay. année bi quelques quelques heures ci des ñu jàll 2016 incha allah donc euh, en espérant que année bu radieuse lay nekk année bu neex pour ñun ñëpp et que euh, surtout terroristes yi bàyyi nit ñi en paix si bi may ñu tuuti jàmm sonal nañu parce que ñoo tax mu slow waaw 31 bi dafay slow tey parce que <laughs> sécurité ni yi moo a jàll avant tout donc 2016 bi li leen di ñaan rek yéen toog leen yéen happy ak seen famille te bàyyi ñu ñun ñu happy ah oui c'est très important en tout cas je le rappelle encore yëpp tey euh, ñoo def euh, feetu fin d'année bi ci sobriété euh, Angleterre bi nga xam ne ni sax ñoom mënuñoo bañ a def euh, feu d'artifice sax dégg naa fa ñu koy defee entrée payante la ñu ko def tey pour éviter qu'il y ait manque de sécurité donc tey bu dee dégg ngeen ni lépp nu koy wàññi rek na ngeen na ngeen bañ a mer te xam ni àddina moo demee noonu ci période bii nii et que ñun tamit dañuy dox ci mouvance boobule parce que bëgg nañu jàmm ji nga xam ni moo sax Sénégal mu wéy élargement Baye mi wax na ko sànq tey jii chance bi ñu am mooy kilifa diine yi ñu fi am. Mm. sunu xalifa yi nga xam ni ñoom ñoo ñuy ñaanal suñu sëriñ yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy ñaanal mm. kilifa yi nekk ci jàngu bi nga xam ne ñoom ñoo fi représenté pape bi ñoom itam ñoo ngi ñuy ñaanal cest à loolu daal Sénégal la fekk baax te ñu ngi ñaan nag mu sax ah li nu yàlla may de bu nu ko xebu càttin wallaay Pape Cheikh euh, am na réew yoo xam ne yii amuñu jàmm mm-hmm. te lii nu def jàmm tax wallaay jàmm tax bay te Pape euh, réew bu amul jàmm amul dara déedéet déedéet déedéet déedéet moo tax suñu mag ñi kenn du ñoom wallaay kenn du ñoom te ñoom bi ñuy bi ñuy sos lii mm-hmm. dañ mënoon nañ ko yemale seen bopp. mais hmm. defuñu ko. wallaay wallaay dañu ko dañu ko dañu ko landil. Hmm. ñaanal ji nga xam ne tax ñoom ñooy ñooy ñooy ci siècle yi mujj ñi mujjee ñëw sax. Hmm. ñaanal nañu fu nañu def fa dara waaw fu nañu def c'est important nag wallaay c'est important moo tax ñaan am na solo daal. wallaay ñaan am na solo Baye Cheikh. Maimouna euh, Gueye Bambalo euh, yow li tax sa sa njëriñ am euh, lu tax sa taxawaay ci ci yeewu leen bi am njëriñ dañuy comprendre lu bëri ci wàllu droit comprendre lu bëri ci wàllu ko man dey xam naa ci dara parce que am na yu bëri yoo xamante ni saa yoo ko waxee ci laa koy comprendre ñu ngi jëm nag 2016 et je reste convaincu que at mu jot challenge lay nekk pour yow incha allah Pape Cheikh xanaa di wax ni que en fait ñun li ñuy def. c'est pour aider les euh, Sénégalais à mieux comprendre. parce que téléservice la ñuy def parce que la ñuy def te booy xool euh, affaire yi compliqué wul. Mm-hmm. peut-être nit yi peut-être ñu wala duñu comprendre techniquement mots yi ni ñu koy waxee. ñàkk a xam mais da ngay gis ni que soo defee émission nga def ko en wolof teg expert bi mu expliquer li nga xamante ni mooy par exemple benn terme wala benn situation wala benn cas mm-hmm. wala que nit yëpp mën nañ ko comprendre ñun loolu mooy suñu challenge mhm. loolu mooy suñu ay défi li nga xamante ni mooy vie wu yi mu mhm. nekk si wàllu koom-koom mhm. mooy nga xamante ni da leen di aider à ce ñu mën a vivre mieux ñu mun a am ay koppar te bu ñu ko amee aussi ñu mën ko ñu mën ko téye ba nga xamante ni dinañ si gis njëriñ mais aussi si beneen côté bi si wàllu yoon ñu mun leen aider ba lu bari ñu mun ko fàggandiku c'est-à-dire loo xamante ni dañ koy def te du nekk seen tayeef wala ñu def ko te ñàkk xam waral ko ñu mun a maytu képp tamit koo xamante ni am nga problème si kaw problème boobu nga jàppale wala amoo sax moyen wu am avocat te day nekk ay affaires yoo xamante yu ndaw la mhm. ñu mun ko expliquer sénégalais yi pour ñu mun a comprendre parce que da ngay rendre compte Pape Cheikh ni que ay économie ay droit day nekk loo xam nit ñi dañ koy soxla mhm. dans leur vie dañu war di xam dañu war di euh, am na am na ay dispositifs yoo xamante ni jël nañu ko pour mhm. askan wi euh, mais boo ñu ci dul expliquer dara du ñu xam ni am nañ ko euh, barki dem bi ngay waxtaan ci affaire prestation familiale man xaw ma ne woon kuy liggéey am nga fas lëf man ba émission ba jeexee ci laa jubali foofu foofu ñu tuddee familial naa faa jël tuuti ah, jot nga faa coppati tuuti waaw Pape Cheikh loolu la parce que en fait am nga dafa am benn déphasage bu am entre li nga xam ne mooy structure yi nga xam ne état bi da ko fi teg mhm. wala muy euh, mu am utilité publique ak mhm. population bi mhm. donc ñun comme ñu koy defee Télé Futurs Médias dañuy jëm chaque jour pour gën a jege askan bi moom moo tax li nga xamante ni nit ñi moom la ñuy soxla pour mën a nekk wala di dund dund boo xamante ni vraiment lépp dina facile si ñoom ñu mun leen ko indil à travers yeewu leen ñu comprendre ko ku ci nekk li nga xamante ni moom nga soxla nga mun ko ci jël voilà en tout cas ak Maïmouna beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup d'infos euh, jëm ci droit ak économie yaa yaa ngi koy préparé. incha allah beaucoup d'infos encore plus de proximité. Mm -hmm. mais surtout comme ni nga ma koy euh, waxee chaque fois. dinañ dem di gën a jege population bi di leen laaj lan la ñu soxla. di leen laaj lan la ñu bëgg xam. pour ñu mun leen ko indil mais non du mën a terminer te du ma passer samay vœux ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. Mhm. di ko tàmbalee déjà yéen ñi nga xamante ni yéen laa bokkal plateau bi Pape Cheikh du ma taay di ko wax baax a baax baax baax parce que ku baax nga ku yaatu nga vraiment man tu une personne boo xamante ni tu m'as marqué. vous êtes mes amours en réalité. voilà yéen man ak yéen ñooy génn. <laughs> ñoom ñëpp laay génnal. Badou ñoom ñëpp laay génnal. ah tu dois même les mariés ñoom laay génnal. ci réew mi ñoom ñëpp damay génn ak ñoom. <laughs> ñoom laay génnal. baax na la remercier. tey de booy bëgg aw ñoom xamante nañu bu baax buy ñibbi na jaar ni yoonu géej. <laughs> jaar di remercier ki nga xamante ni mooy Bouba Ndour di remercier euh, kilifa télé yi di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. des fois di ñu di ñu envoyer message sur Facebook di ñu di ñu di ñu wax te traité leen tel thème di ñu encourager di ñu féliciter mais aussi di remercier sama famille ñi nga xamante ni lépp lu nekk ci man ñoo ko def. macha allah ñoom ñoom ñoom Fatim ak sa borom kër surtout surtout euh, ren ci ci at mi ñu génn li ma li benn affaire moo ma marqué bi ngay waxtaanee affaire apatride yi euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk te amuñu këyit euh, amuñu nationalité da ci waxtaan ñaari fan après rek ma gis ni waa Nations Unies def nañ ci campagne ba noppi itam jël ay décision yoo xamante ni dañuy jàppale parce que bëri na ay nit yu nekk Sénégal par exemple te amuñu këyit yooyu koy sante yàlla a mun a jàppale askan wi ñu ngi la ci ñu ngi la ciy félicité waaw loolu mooy suñu rôle il faut que ñu mun a anticiper ñu xool fi nga xamante ni moo am problème problème ñu mën ci teg suñu baaraam pour ñi nga xamante ni ñoo ko war a dégg Pape Cheikh voilà jant baa ngi jóg de gis ngeen ko noonu naaj beek yëpp da ngeen koy dund en direct ñu ngi fii ci place du souvenir tey fii ba ba ñuy toll euh, ci 12 coups de minuit euh, dañu leen di gunge ci télévision Futur Média ñu waxaat ko rek naam sax euh, festivité fin d'année yi dañu ko wàññi fii ci capitale bu Sénégal waaye teewul ñun dañ leen di gunge ba ñu dugg 2016 xamaguñu nag kan moo nar a meew bi tey dañu koy puluf Mamadou Ndoye Bane moom nee na il est partant mais bëggagul meew meew bi waaye nuru na ma meew kat. waaw ñu puluf ko rek. ñu puluf ko. waaye am na ñoo xam ne jarul ñu leen dugal ci ci ci loo ci yëfi meew comme ñaan limal waaw loo bi. mais ñëpp la télé bi ñu ñëpp a de defe naa bu ñu tollee ci yëfu programme bu fin d'année ñëpp a ciy bokk Mbaye day bokk parce que mun na meew meew bi El Hadj gi day bokk euh, euh, Mamadou Ibra Kane day bokk parce que euh, yëfi directeur ak kilifa yooyu hors antenne la waaye képp kuy génn ci antenne bi rek ñun ñëpp a maase ah, la waaw ñun ñëpp a maase de ah loolu de na war waaw oustaz papa nag ñëpp kon de yàlla na dal ci xale yi rek mbay yàlla na dal ci papa mag mu meew moom <laughs> mag mu mag mu meew waaye mbay boo naree meew ci télé bi dina rëy de nga war a yëkkati sa grand bu bu rek toog di meew meew bi <laughs> waaw <laughs> voilà ñu ngi ci profité tamit di ndokkeel sunu euh, partenaires yi ñu gunge tey ci suba gi bokk na ci euh, waa Sénart assurance euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax fàttewuñu tamit Alfi délice du Liban ci safa-safa yu baax yi nga xam ni <laughs> indil nañ ñu ko tey ci suba gi ñu ndekki xaw ma nag ñan ñoo nar a rees añ bi waaye ca kanam bu ñu yegsee ma gërëm leen mais pour le moment du ma jënd jaan ci pax comme ndekki ñëw na gërëm naa ñeen ni ndekki muy délice du Liban comme assurance ñëw na ndax fi ñu nekk dafa kawe mën nañoo daanu bërëngu ba ca ndox ma lap assurance a ngi oustaz ñooñu mën naa leen gërëm mais añ bi comme jotagul te ñëwagul du ma jënd jaan ci pax ndey Seynabou euh, tous les matins euh, ci télévision Futur Média yow la àndal muy horoscope mhm. euh, muy li nga xamante ni mooy météo depuis deux jours déjà et puis tu passes toute la matinée ak téléspectateurs yi ci réseaux sociaux yi internet bi mhm. ñu tuddee leen ay aminotes loolu yaa leen ko tuddee defe naa war naa mën a dugg nag ci dictionnaire bi aminotes waaw les aminotes moom foog naa ne moo la boo xamante ne war naa mën a dugg ci dictionnaire bi léegi mm. wax waaye ci yow la jógee. Mhm. yaa ko génnee des aminotes. waaw yëkkatil micro bi fi mu ne nii nag Pape Cheikh euh, xam naa tàggatoo rek laay def. tàggatoo mais mënuma tàggoo nag. dañuy nañu ah, toogandoo fii parce que tey ñoo occupé place bi yëpp nag. chaise musicale la tey waaw tey boobu waa chaise euh, seetaan nag une très bonne et heureuse année euh, parce que a ngi jeex nag gis ngeen programme yi nga xamante ne Télé Futurs Médias andi woon na ko 2016 mhm. dàq fopp ndax surprise yi euh, dinañ bëre te dafa tombe nag ak chaîne yu bees yi nga xamante ne ubbi nañ ko euh, ba tax na daal programme yi gëm naa ne day gën a neex téléspectateurs yi dinañ ci gën a mën a gis seen bopp. Mm-hmm. mënuma pare nag te ñaanalu ma euh, waa yeewu leen. Mm-hmm. équipe bi daal yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla bu ci cat. mën ngaa mbii fa foore mën ngaa tëmbajee mën ngaa tibiri bi joo lakkale nga Pape Cheikh fatte nga sonnale nga waaye nit gënu benn karaw foqataana ma dese te xam naa dina ko xëcc. balaa 2015 lay jeex loolu leer na benn rek ma dese non bàyyi naa ko faama laa koy bàyyi billaay am nga xol bu rafet nga ñu def ñu sa ay rakk ni nga koy waxee sa ay amour te dañuy xool say bët on voit de l'amour dañuy gis affection si sa ay bët franchement li may wax sama xol laa ko ci bee Pape Cheikh yàlla na ma yàlla na xool cat waaw cat ba daal na nañu yërëm <laughs> équipe yeewu leen ñëpp di leen souhaiter aussi une très bonne et heureuse année 2016. voilà et puis euh, ñu ngi lay gis fan yi ci permanence est-ce que xam nga ni tey la permanence am un an parce que daaw fii la ñu ko tàmbali woon permanence. 31 ah décembre euh, donc ren la permanence am un an. je crois que c'était avant. non c'était c'était ah, le. non on l'avait lancé voilà le même jour. après mu ñëw voilà c'est vrai que permanence nit dañ dem ba nit ñi dañ koo tàmm ci télé bi ba nga xamante ne tu as l'impression que biñ ko commencé yàgg na. voilà tey la am un an et là on se rend compte que ça fait juste un an. voilà. kon kon Kapsitel li mu nar a permanence ñu dem ba ngeen di xëccoo permanence bi. waaw gis nga parce que léegi koy xëccoo. bis nee damay permanence man ma naan damay war a defaat permanence. ayca ñëwal <laughs> yow booy ñëw ñu di la jox yaay suñu mag ñëpp ci biir. <laughs> de toute façon ñoom ñëpp dinañ ñëw parce que tey euh, il faut que ñu animateurs yëpp fekkee puluf bi euh, euh, pulufu meew bi ñu mën a xam kan mooy meew meew bi. man maa responsable maa euh, les autres euh, ñu yegg si euh, ñoom tamit ci plateau bi on a beaucoup d'éléments yoo xamante ni bëgg nañu leen ko won ci ndimbalu Pierre da Silva Pape Samba Thiam ñoom ñoo nekk ci ginnaaw pour gunge téléspectateurs yi ci yu baax yi nga xamante ni dañu leen ko jagleel tey toute la journée bu 31 décembre et la semaine bay gar mi ca kanam itam am na loo xamee ni da nga ne faaw rek nga fàttaliwaat ko Sénégalais yi jotaay yi ñuy def toog di waxtaan di waxante yu baax di organiser ay plateau spéciale euh, di euh, àndaat ak nit ñi di leen gunge seeni i xel di dal mag ñee ko njëkkee woon nag. Euh, Pape sa poste bi da dalal ñàkkul dalal sama xel de. <laughs> pour kii meew meew rek te ngeen ma ko féete la may déedéet bàyyi ma ko rek man maay man xanaa xamoo maay trésorier bi xaalis bi maa ko téye léegi ñun nag dañoo cotiser pour meew suñu meew mais lii ma téye mooy xaaju euh, li ma bëgg a may téléspectateurs yi loxo fukk rek laay def ku woote ma may ko fukk loxo fukk rek loxo cinquante mille jatu miy filmé ak may xool genre naan ma euh, sama mag nga waaye magoo mag kenn ci fi xaalis donc mag kenn ci fu xaalis taaru na dem bay voilà loxo fukk loxo fukk laa koy def tey dama ko gis muy génn poche bi rek xanaa ma fàttaliwaat téléspectateurs yi numéro téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 bëgg ganaar daal na woote léegi ganaar ah bëgg El <laughs> donc euh, jotaay yu am solo yi Sénégal démb la. waaw xam nga Baye Cheikh. Hmm. démb rek moo neex te buñ dee wax ay démb tax. Hmm, hmm, te sénégalais yi. ku ci fonkul démb rek yaa ngi ci erreur. wallaay yaa ngi ci mag ñi dañu fonk démb. fonk tamit ñi nga xam ne nii. ñoom la leen yàlla boole loolu ci démb. ndax bu ñu dee nee démb rek wóllare dafay dugg. Mhm. te kóllare dafa am dafa am solo lool. Mhm, mhm, sunu jataay bii tey kóllare moo ko waral. parce que fekkoon dañoo nekk dañoo nekk ca tele ba. te soppante wuñu. duñu duñu agsi fii. waaw ndax ndax mën nga ñëw woon ñi ko mag ñi daan defee ci jotaay yooyu ñoom Kaani Samb ak ñooñu. parce que démb naa ci jamono yooyu man maa doon Kaani Samb. <laughs> pour ñu xamul Kaani. mooy Kaani Samb Kaani Samb eh, ci gën a yoo. Kaani nag boo déggee ñu ne Kaani Kaani. boo digee ñu ne kaani dafa weexoon mhm. dafa weex ci cosaan mhm. Mhm. bu ma saan dugg ci bawal ak siin ak saalum addina day yëngu moo tax ñu mujj ko tudd kaani moo tax xam naa ne xam naa ne euh, mën na tàbbi sax ci élément bi waaw sénégalais yu xool ko waaw day nekk loo xam ne am solo parce que parce que ma biral nag mag mag ñaa ngi seetaan ma koy dégg nag waaw ndax man loolu moo may soxla nga bëgg dégg kaani waaw waaw waaw moo may soxla <laughs> ayca kon ñu xool élément garmi bi na biir mu yónni ngóone latti kooku nag moom la leen historien yu mag yi tey kër ca ndeel a taxaw kër ca ndeel rambalaat naari góor ya dem ca wagudu ya jël njëm mberi am ca ma njéeme ak ma ak daali njéeme ñu sañ ci barjaag dafa xobba kër ca ndeel a rambalaat naari góor ya ñu jox mbokk yi mu nekkoon ay jotaay yoo xamante ni loolu euh, defe naa démb la ci euh, El Hadj Oumar Mbaye Garmeek fàttaliku gi mu ñuy jagleel alxame alxames bu jot euh, tey daal nga ñëwaat daal ci yoo xamante ni moo tax lu ñu fi def rek fekkoon na mag am valeur yi nag def ko ci réew mi ba noppi nag. xam nga Pape Cheikh ñii dañ dañuy mës fekk jàmbaar ñu kañ ko. Hmm. delloo ko ay valeur hmm. moom moo tax nga dégg noonu. Kaani Samb. Mhm. fegoo eh, ak Aj Abdoulaye Naar. Mhm. fegoo ak Mor Dior Siga. Mhm. fegoo ak ki nga xam ne kii mooy Assane Morokoy ku ma jàngaan. Leena Dior Mbaar. ak Birima Dior Mbaar. ak Ndongo Dior Mbaar. fegoo tamit ak ki nga xam ne kii Baye Cheikh mooy mooy Samba Jabare ak Amane Ndiaye Lalla. Amane Ndiaye Lalla. ak nag ki nga xam ne kii dëgg-dëgg mooy Aj Mansour Mbaye président de tous les communicateurs traditionnels. sa pare ki la yor ah université. ak Samba Seck waalo waalo bu mag bi. waaw waaw mag ñooñu bu ñu masaan a sañsee ba tey ñu ne tey ña ngay fekk jiili mbay hmm. day mel ni àddina day bëgg a tukki bu ñu la fekkee foofa hmm. wala tey ñu ne dëgg de président Senghor mi ngi am gan hmm. wala tey ñu ne fin de fin d'année jot na comme nii rek ñu dem ne dëgg-dëgg ñi ngi ñi ngi fekk président bi Diouf ca palais ba dafa am solo wallaay dafa am solo dañu war a dekk yooyu palais bi ñëpp ko moom. Mhm. recruter géwél yi ñu toog wax président Macky Sall lu baax. Mhm. wax wax ko li nga xam ne moom la ñu ci réew mi. Mhm. war na. parce que Baye Cheikh dafa am loo xam ne lii ñu nekk ci biti ñoo koy gis. te wax ko day am solo. te yaakaaroon naa ko. ak xalaatoon naa ko waxoon naa ko mu gën a fort. gis nga yenn saa yi sénégalais yi dañuy jël exemple ci benn affaire bu yàgg euh, ñu reetaan ci rek. parce que lu lu passé la. Euh, ci ay jamono ñu ne euh, président Abdou Diouf bi ñu ñëwee ne ko mbuusu meew juróomi dërëm am na dañ koy takk di ko jaay gëmu ko woon. tax yooyu am solo dafa am ay nit yoo xamante ni géwél yi ñoo daan wax ak buur yi. lu buur xamul. te li gën a garaaw. te gën a xamul woon ni bolu meew. bolu meew juróom ñu ngi koy jaay xam nga bol. takku meew yi takku meew xamu ko xamu ko te léegi takku bulo sax xam na. walaay takku bulo am na ndaw. jinjeer yi dañ koy mbuus mbuusee di jaay ñoog poobar ak yooyu yëpp. waaw looy damaa xam dañ koy jaay rek ci réew mi. mais xam nga xam nga xam nga boo nekkee réew boo nekkee njiitu réew ci réew mhm. lu xaw ci réew ma da ko war a xam mhm. c'est mhm. important te am na ñoo xam ne am fra fra aux wax la li nga xam ne ñoom moom la ñu xalaat te loolu c'est très important boo àndee ak kilifa da koy wax ne lii moo xew lii moo xew lii moo xew ah. boo ëllëgee ah. am na yoo xam ne mu mën ko mu mën ko moytu eh. fi mu war a yokk doole mu war fa yokk doole moo tax moo tax c'est très important mag ñi nag dañ leen di ñaanal bu baax yàlla yëgal leen ci àjjana yu kawe ya mais noo mas a day ak noo mas a toll ak daraja boo boo mën a am boo mas a am dayoo boo mën a am suñ la waree wax dëgg dañ la koy wax. wallaahi. te léegi loolu moo raar ci réew mi. Mhm. bàyyi xam nga lan lay xool dañuy xool rek di raay raayal. te loolu day yàq kilifa. non day la day yàqal kilifa day yàqal kilifa raay raayal rek di la wax lu baax. di la raay tout va bien rek yoo am na yoo xamante ni boo ko yëgee. xam ni mooy sa daanu. mooy dëgg la voilà wallaay. kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmb leen. amiin amiin mais fàttaliku fàttaliku bi nag bàyyi Cheikh. Mhm. rubrique Amadou Mbaye Garmi la waaw. ñu tabbi ñu tabbi ci fin d'année bi mm-hmm. <laughs> te nit alalam daf koy fonk mm-hmm. bàyyi cheikh mm-hmm. ñàkk fonk sa alal mook mook dëgg-dëgg mook mook mook moo fexe yow ba sa alal doon <laughs> sama alal daal du alal néew <laughs> waaw bul nangu bul nangu kenn la mbii fa foore non lu leer laa lay wax dama la koy tàmbale ci njaganduur mi nga xam ne nii mooy directeur bi ah ñëwagul. ñëwagul de Baye na ko dégg ak ñu ko yor il faut rendre à César ce qui appartient à César. bay Cheikh. jërëjëf mbay euh, lii rek a tax may faral di wax naan euh, génération bu ne. ak euh, at yoo mënti am euh, dangay gis sa bopp ci télévision Futurs Médias ndax xam nga fàttaliku gi euh, mag ñi dañu sàlloo surtout suñu yaay yi bu ñu xëyee fajar dañuy sàngoo kol gàddu kurus bu ñu jullee ba noppi li ñu njëkk a def rek mooy taal TFM seetaan yeewu leen moo tax ñoom dañ ciy gis seen bopp yenn saa yi ñu def yu xale xam nga foo caaxaan yooxu reetaan waaye yenn yi am solo yi itam dañ leen koy jagleel lu ci mel ni fàttaliku ak El Hadj Mbaye Garmi donc tey defe naa mag ñu kontaan nañu ci image d'archive yooyu ñu gis loolee di fàttaliku alxames bu jot. maa ngi ci waaj tam lu bees de Baye Cheikh incha allah. la ilaha illallah euh, euh, ku xam ba yeewu Euh, buñ la ba pëkk bëkk buñ la sottee ndox bëgg a jóg waaye waaye sant yàlla rek sant yàlla bu ñu demee ba loo def ñëpp def ko euh, wallaay as góor war na cee sant yàlla El Hadj Oumar Mbaye Gar mi yow nag doo bougé ci plateau bi maître fii ngay toog je rappelle que ca kanam <laughs> yaay supervisé léeg-léeg ma tàbbi ci mbay yaay supervisé tirage au meew bi ma di ko dégg waaw ci yeneen antenne. waaw noonu la wala ma dégg na biir. wallaay noonu ma di ko dégg ci yeneen antenne. Mm, mm. lu koo fay. wallaay dara fay ma dégg ko ci beneen antenne. wallaay wallaay sant yàlla. Mm. wallaay ma dégg ko ci beneen antenne. <laughs> Baye Cheikh yëpp naa ko dagale nag alal borom. <laughs> jërëjëf El Hadj Olof Mbaye Garmi Aïssatou Paye Fall nous a rejoint avec sa belle tenue euh, euh, ma puce on est très ravi de te retrouver ce matin lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan muy culture euh, yeewu culture yow lañ ci àndal tous les mardis alors defe naa 2015 bii ñuy bëgg a génn quand même il s'est passé plein de choses jëm ci wàllu culture surtout li ñu doon kaas muy cinéma am na ay jéego quand même yuy commencé di ñëw tuuti et ça on l'a remarqué durant 2015. Euh, waaw euh, Pape Cheikh mooy ni nga ko waxee y a eu plein de choses yoo xam ne am na ci atum 2015 bi. Mhm. Euh, muy ci wàllum musique. Mhm. ci wàllum théâtre. Mhm. ci wàllum littérature. muy lu neex muy lu ak ñoo xam ne génn nañu àdduna. ñoo xam ne nekkoon nañu ay nit yu mag si si wàllum aada ak cosaan. c'est vrai que 2015 bi y a eu beaucoup de beaucoup d'artistes qui nous ont quittés Doudou Ndiaye Coumba Rose. waaw Vieux Cinq Cinq Faye. dëgg la dëgg la y a eu y a eu Omar Bassoum Ndeye Ngom Bambilor Pakoti Pakoti Moussa Ngom Moussa Ngom waaw kon nag nga xam ne am nañu lu bëri loo xam ne def naa mënatuñ ko remplacer ndax y a eu mannequin bi euh, Mati tamit donc euh, ñoom ñëpp ñu leen di Ela waaw Ela aussi voilà donc euh, ñu bëri dëdd nañu àdduna mm-hmm. waaye teewul it am na loo xam ne marqué nañu ci 2015 bi. Mhm. surtout ci wàllum cinéma. Mhm. donc euh, dañu jëloon un milliard. Mhm. jagleel ko euh, euh, producteur yeeg réalisateurs yeeg yooyu. mu am loo xam ni même bu dee bëriwul. naam néew na am na loo xam ni def na ko si parce que yenn réel yenn réalisateurs. avion baa ngi romb micro bi yëkkati ko ñu dégg la. waaw ci mbedd bi la toog rek tey. waaw yenn yenn réalisateur yeeg yooyu. Uh-huh. Euh, am na ñoo xam ne seen ay projets yu ñu yàgg am mujj nañ ko réaliser. Uh-huh. ndax un mili un milliard de francs yooyu ñu leen jagleel. Uh-huh. naam néew na. donc euh, lu lu directeur de cinéma de la cinématographie xamle woon. di Diaz mooy ne fu mu toll nii salle de cinéma amatul. waaye projet yu bëri taxawal nañ ko. ngir loolu ñëwaat dëkkalikuwaat bu nga xam ni jeunes yeeg xale yi mag yeeg ndaw ñi. bu amee yenn film yu intéressant yi daañu dem mun seetaan ko mhm. seetaan it ñun suñu film yi nga xam ne suñu ay réalisateur ak suñu ay producteur ñu ngi koy vulgariser mhm. euh, li ma gën a marqué tamit dafa am loo xam ne dama ko daf ma daf ma daf ma soxal mhm. mooy Cheikh Lo Cheikh Lo waaw Cheikh Lo donc man dama ne faw faw ñu jël ko si atum 2015 bi ndax niñ ko sargalee. dañ mm. ko sargal bitim réew bitim réew ba nga xam ne. Mm-hmm. maire de Kër Massar dafa jékki-jékki mu ne léegi day jël benn rue jagleel ko ko. ndax ah, liggéey bu muy def Kër Massar voilà tuddee ko tuddee ko tuddee ah, ah. Euh, loolu léegi ñu def ko. Mm-hmm. ndaxte day jàppale bu baax muy école yeeg centre de santé yi. lu bëri daf koy jàppale Kër Massar surtout que 2015 bi li mu am ci ay distinctions. voilà dafa bëri c'est dinañ def tamit benn effigie pour moom. ah c'est bien ça donc loolu il fallait ñu waxaat ko pour euh, pour nit ñi xam naka naka la. Euh, Cheikh Lo doon defee liggéeyam. d'accord je pense qu'on peut regarder l'élément. oui on peut regarder suivre ouais. Aïcha. cinéma sénégalais mi ngi yeewu mi ngi dox ni mu waree directeur de la cinématographie xamle ko mu teg si ne ministère de la culture ngi def ay jéego yu rëy ngir mu mën a nekk fa mu ne woon. ci organisation xam ngeen ne ay bu amul ay texte. muy ay charte yuy organiser cinéma cinéma du mën a dem fu sore donc ñu ngi ci ay jéego yooyu mun naa wax tey fonds de promotion de l'industrie cinématographique parce que luy def cinéma koppar bu ci nekkul bépp artiste bépp cinéaste du ci am yënguti bu mu war am donc koppar bu ñu ko tegee ñi ci yëpp dañuy yëngatu pour mën a euh, faire bouger les choses. beneen i jéego muy wàllum formation benn ci priorité yi. benn école buy tàggat xale yi ci wàllum cinéma loolu handicap la moo tax waa France ñu ngi xool pour que sénégalais mën a am benn institut supérieur des métiers du cinéma parce que bu leen di gis fii école yëpp réalisateur la ñuy former ay ay ay monteurs mais. cinéma lu muy ëmb liggéey yu bëri lay ëmb. parce que script kuy def script Sénégal amu ko de cinéma costumière il faudrait ñu jàng mooy lan musique de film ñu xam ñoo ñàll la direction de la photo ñu xam ñoo ñàll la ingénieur de son ñu xam ñu mën leen tàggat fii ci Sénégal donc loolu yëpp ci fan yu yu yu yu yu yu yu néew ah Sénégal dina dévoiler son projet projet mooy projet bu mu am. ci wàllum institut carrière bu gudd bu metti ndax ci gis-gisu Cheikh Lo musique nekk na lu doy waar laaj gëstu ak don de soi mu mel ni loolu lépp nekk na ci moom ba tax na ñu jox ko raaya gu ni mel muy prix World Music Expo mu nekk mbégte gu rëy ci moom day nekk mbégte boo xamante ne defe naa parce que bu ñu ne Cheikh Lo dañ ne dañuy def entre parenthèse ne Cheikh du Sénégal cest à que ndam bu mel noonu bu ñu ko jëlee ci Europe wërngal këpp ak talent yi fa am certes confirmé bu ñu jëlee dix meilleurs parmi des milliers disque bi ci boppam dafa ñëwaat dugg top ten nekk premier pour les dix meilleurs ça veut dire que top ten de toute l'Europe disque bi daf ko jël mooy benn raaya deuxième raaya mooy bi ngay wax ni mooy prix bi waa si joxe muy World Music Exposition loolu mbégte la bu rëy boo xamante ne ni Sénégal ñoo ko moom ak Afrique yëpp kuy askan nit ku ñuul ñëpp ñoo ko bokk. seede yi doon benn nit ku généreux. ba waral sargal yi ci wàllum ay dëkkandoom fii mu dëkk de nit ñi euh, maanaam nit ñi yëg nañu ko nit ñi ñu ngi koy dollu njukkal ci lii nga xamante ni def na ko fi tey bu fekkoon fi ko yëgle ma gëm naa ni kër kenn fi xaj mais xëy na nii la ko bëggee te ñun tamit ni mu ko bëggee noonu lañ ko ci jàppalee. soxnaam itam yàgg ak moom fukki at ak juróom-ñett ci sëy mu seddal borom këram lu rafet. baax na ba fu baax yam bàyyi Fall dëgg la gëmul lu dul Cheikh Ibrahima Sëñ Touba sagal na ma bëgg na ma teg na ma fi ma war a teg ba tax su may wax sax sama xol day xaw a tooy mu nekk moom it guitaristam mu bëgg ci liggéey ak professionnel bu mel ni Cheikh nit bu nit bu la ba pare nit bu xam li bu bëgg la ci musique ba pare musique am euh, compliqué wul simple na mais c'est pas facile aussi loolu daal man gis naa loolu ci musique am ans de carrière de métissage musical Cheikh lu yàgg ubbeeku ci musique monde bi ba tax na ren ji ñu nar ko sargal le octobre ca Budapest ca Hongrie. rétrospective euh, culture comme on le fait euh, ci suba gi ci yeewu leen bi grâce ak Aïssatou Paye Fall euh, tey nag ñëwaat nga ci am solo yoo xamante ni ça nous a marqué quand même durant waaw li li li ñu naan li duuf si nag bi. xajul ci biir ci waaw waaw waaw xanaa ñu jéem a ñoox ñooxee rek jéem a ñoox rek waaw dañ koy ñoox ñu def loolu nga xamoo ñoox déedéet mais dañuy jël. ñu defar rek l' essentiel voilà ñu defar l' essentiel. waaw teewul am na yoo xam ne yu am solo. jot na xew si atum 2015. quel sera ton message pour 2016 bi ñu jëm. Euh, damay ñaan ñu fekki ko. amiin euh, am wér gi yaram. Ah, parce que avec Dieu tout est possible même à quelques heures. voilà donc yàlla nañu ko fekkee rek. yàlla nañu fekkee ñun ñëpp ci des. voilà avec Allah tout est possible. fait donc yal na ñu fekkee 2016. amiin si jàmm ci wér. yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué le. amiin yal na ñu de yàlla defal jàmm ñun ñëpp. li ñuy yóotu ñu jot ko te mu nekk suñu njiglaay. amiin yàlla dafa xol yi. tappe xol yi. Euh, yal na ñu yàlla may fekkee daal. fekkee te bu ñu fekkee yal na ñu tal ñun ñëpp. yal na ñu fekkee te bu ñu fekkee yal na ñu ko tal. Pape Cheikh les hommes de culture. oui seen xol dafay rafet. Mhm. soo soo leen di dégg. c'est des artistes. am na lu wax artiste dafa. dafa dafa dafa am pureté waaw pureté. waaw très très ah, moo ko moom. waaw fi nu toog ay tool yi la. waaw waaw dañu koo dénk màkk bu Malick ak Géla bu Malick si rek. waaw mais it nag mu def ci nag mu def ci valeur nag. ah kookoy jigéenu papa papa Idi si. bokk bàyyam nenne ndax doo romb mukk bàyyi Cheikh te sa mm-hmm. xel nag du xam ne fii. dénk uh-huh. nañ ko jigéen ju am valeur. wallaay te gerte woo. bu pay njéeme man de kontaan naa lool. wallaay wallaay. Euh, madame Fall lama saas ma coro fay saas ba tinti njéeli njaay jaafuñ bi. wallaay Amady Ngoné Sabel vraiment de culture daal dëgg la kenn mu leen fay bàyyi Cheikh. jërëjëf Aïssatou Paye Fall ñu ngi lay gërëm bu baax et puis on reparlera culture surtout de cette place mythique euh, muy place du souvenir ca kanam directrice bi bi comme ça ñu waxtaanee ci yu baax yi nga xamante ni am na fi ndax guleet euh, mën nañ fi ñëw doxantu gis naa fi ay restaurant wa gis yu baax yoo xamante ni même bu dul ay musée euh, et tout ça am nay expo yu fi am ak yëpp euh, on en parlera tout à l'heure ak euh, madame Adja Siba elle viendra ci plateau bi pour joxe message de vœux pour télé pour sénégalais surtout parce que defe naa njëriñu place du souvenir il a fallu que moom mu jiite ko pour sénégalais yi doog koo xam donc ca kanam lay doon ci yeewu leen bi Kya Aidara nous a rejoint itam ci plateau bi avec sa belle robe bienvenue ñu ngi jëm 2016 waaye grâce jóg job euh, xale yu bëri bërki démb maa ngi koy nettali euh, ni dama tase ak kenn fii la woon sax ci benn événement bu ma doon présenté xale bu góor bi ne ma ku tuuti ah ne ma man lenn rek mu may motiver saa yi ma déggee ci jóg job bi jóg job bi ngeen ni soxla bu teew ay nelaw faju ko loolu de dee leen koy wax parce que man daf may motiver amaguma liggéey chômeur la mais su ngeen ko déggee rek damay jóg dem dem wuti quoi waaw loolu dafa am solo waaw Pape Cheikh euh, lu am solo ngi noonu déjà xam ni que 2015 baa ngi jeex. Hmm. fëlal sa karo fël ko tuuti waa kay <laughs> fël ko ndànk rek. balaa ngay amee torticolis. <laughs> voilà Pape Cheikh 2015 euh, baa ngi jeex Pape Cheikh et que euh, dund nañ ci ay ay moments yu fort euh, côté jog Diop am na ci quelques quelques éléments yu ma yu muy aujourd'hui bu ñu naan dañu bëgg a réduire chômage Sénégal li monsieur le ministre mambay Mbaye Niang def ci côté emploi muy 17 milliards yi nga xam ne dugal na ko ci emploi pour réduire le chômage. Mhm. Euh, on a parlé également de du guide. c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour emploi bi moom euh, ministre euh, ministre Mame Mbaye Niang cette cette année. loolu moom ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu bu baax. il ñu ngi koy rafetlu bu baax waaw. voilà l'emploi des jeunes moom vraiment oh. monsieur le ministre xaw ma ndax yeewu nga di seetaan vraiment ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm bu baax ñang ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy remercier ah, Pape Cheikh ak mu ànd ci euh, ak ak ANPEJ ñi nga xamante ne seen seen seen mission mooy faire la promotion de l'emploi des jeunes ndax l'objectif c'est euh, li ñuy ñaan mooy zéro chômage zéro chômage zéro zéro chômage qui va être difficile parce que même euh, dans les dans les grandes nations dañuy am problème ak chômage ah en France dafa yokk beneen dëkk beneen dëkk donc defe naa ñu ngi nekk en voie de développement li ci suñu ay autorités def quand même politique ñu kenn waaye boo gisee nen ni nen a ngi euh, moom mambay ñu ngi ko ci euh, félicité encourage oui vas allez-y waaw danañ ko dañu ko defaa rek ma def ko xalifa Diakhaté rek <laughs> bañ xaar lépp ci état. je pense que faw ñun tamit euh, ku si mën dem yëngatu. ci wàllum voilà dama koy dégg mu koy mu koy wax. voilà ci et c'est important. Mm-hmm. li tax sax euh, mu gën a dugal loolu parce que seetlu nag ni que jeunes yi bu ñu jàngee ba pare rek mm-hmm. dañuy dem ci entreprise yi déposer. Mm-hmm. alors que am nañ je pense que euh, outils nécessaires yi. pour mën a créer seen propre entreprise. moo tax mu injecté xaalis bu toll noonu pour ne leen xaalis baa ngi fi yéen a ko moom. bind leen ay projets yu bancable ngeen dem au niveau de pej wala ci yenn structure de la place yi pour ñu mën leen a jox li ngeen moom mhm. Sénégal jëm kanam mhm. euh, ci kaw loolu Pape Cheikh dem naa seeti APIX pour euh, mhm. guide créateur d'entreprise parce que bu ñu nee euh, xaalis a ngi ni créer sa entreprise derrière état bi également tegaat na fi ay matuwaay pour permettre jeunes yi ñu dem créer seen entreprise en deux jours autonome ba pare gunge la ci naka ngay demee Euh, yan charge ngay am naka nga koy gérer. Mhm. ñu dem seetaan élément bi ñëwaat Babs. Nous avons au sein de l'APIX le bureau d'appui à la création d'entreprise euh, qui est un service qui existe depuis 2007 et qui est chargé d'aider les créateurs d'entreprises à se formaliser euh, en un euh, record. une personne qui veut créer une entreprise individuelle n'a pas besoin de passer par un notaire. Il n'y a pas de capital minimum de départ. Et euh, par contre, le seul inconvénient, c'est la crédibilité, contrairement à la SARL, donc la société à responsabilité limitée, donc qui est plus crédible qu'une euh, entreprise individuelle ou un GIE. Hein, donc le GIE, le mouvement d'intérêt économique, est un groupement de moins deux personnes que vous pouvez également créer au, au sein de, de l'APEX. Donc, euh, pour la SARL, donc, euh, on sait tous qu'avant, il fallait pas moins de 1 million de capital pour pouvoir se, se constituer en SARL. Et il y a des décrets présidentiels hein, euh, qui ont permis de réduire le, le capital minimum jusqu'à 100 000 francs et même de réduire les, le tarif des, notaires par rapport aux frais liés à la constitution de la SARL. si une personne a déjà en tête la forme juridique de son entreprise, donc elle viendra déposer avec euh, les pièces requises, donc euh, par exemple une entreprise individuelle ou un GIE. Hein, donc il faut savoir que euh, nous pouvons créer au sein de, du BCE que les entreprises individuelles et les GIE directement sur place. chômage bi euh, président de la république bi muy ñëw ci nguur gi xamoon na ne que mooy jafe-jafe bi donc indi na ay saafara yu méngoog lool Euh, bu ñu nëbbantewul waxante dëgg téeméeri xale yoo jël yuy ut euh, liggéey ñeent fukk ak ñaari amu amuñu métier mooy maanaam amu ñu métier bu ñu mën a def euh, diplômé yi ñuy wax ni que chômage chômage bi dafa bari boo ko seetloo fii nii Sénégal diplômé yi ñuy wax yépp xale bu jàngi ci ñeenti filières yi ngay dem banque finance assurance communication marketing te yooyu ñu ñépp xam nañ ni que Euh, këru liggéeyukaay yi leen di jël bariwul ca jël nañu li ñuy jël ba pare beneen bi ci topp mooy njàng mi méngoowul ak euh, jamono mooy méngoowul ak euh, këru liggéeyukaay yi nga xam ni moo am ci jamono ñeent fukk ak ñaar yooyu nga xam ne amuñu métier na président de la république nee na ñaari wàll rek lañ ko mën a développer mooy nit ki am xalaatam bëgg a liggéey liggéey boo xam ni mën na ko jariñ ñu lebal ko xaalis beneen bi mooy xale bi nga xam ni xëy na ci mbay la nekk ñu encadré ko utal ko suuf loolu moo tax président de la république créé domaine agricole communautaire yi loolu moo tax président de la république créé benn euh, projet bu tudd PAPEJ jël fukk ak juróom-ñaari milliards jagleel ko ndaw ñi ak jigéen ñi léegi laajatuñ xale yi garanti mais li ñuy laaj mooy wax dëgg yàlla nag nga indil ñu projet bu bancable projet bu bancable ingénieur financier moo koy bind mooy maanaam ingénieur bi dina wax ci këyit projet bi li nga bu la joxee xaalis bi li nga ciy def ni nga ciy liggéeyee ak bénéfice bi nga ciy am ak nan nga ñuy fayee. Le community manager a pour mission au sein de son entreprise euh, de créer, d'animer une communauté afin de développer euh, ses relations avec euh, son, ses clients, ses, ses collaborateurs. Euh, en tout les fans qui, qui le suivent sur euh, les réseaux sociaux. C'est faire des activations digitales, des animations, faire de la veille surtout. Il y, a, une grosse partie veille à faire, donc il faut toujours être là, présent pour la marque, au nom de la marque. Donc il faut euh, être la vitrine de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Vous développez une stratégie, vous déployez des actions. des actions, puis euh, un contenu, des chroniques afin d'animer, de créer une interaction avec euh, les internautes. Un exemple, euh, sur une page de mode et beauté, par exemple, vous allez parler des astuces, vous allez parler de la marque, vous allez parler de comment euh, le designer ki nous marqué côté emploi ci 2015 bi ak kii ci Jog euh, Job et comme on dit tout le temps waaw Mame Ndiaté waroon naa ñëwaat comme moom mooy femme de. Euh, entretien Jog Job de l'année. moom mooy Jog Job de l'année Mame Ndiaté mais ça c'est euh, ça montre encore que motivation baa ngi fi xale yi bëgg nañu job yi ñu koy joxe itam bëgg nañu ko joxe. et que seetaanuñu ñu benn yoon. waaw ren je pense que on a mis le l'accent sur l'auto-emploi mais du auto-emploi rek du ñëpp a mën a créer entreprise am na li ñuy naan également emploi salarié. Mm-hmm. ne emploi salarié également ANPEJ mu ngi ciy def jéego bu am solo Mame Diaté bañ ko invité également wax nañu ci les techniques de recherche d'emploi mm-hmm. euh, également quand on a parlé des fiches métiers tey nit ki mënuloo mënuloo choisir euh, le ce métier te te xamuloo métier bi lan la mm-hmm. euh, ñu def ci lu am solo ak ñi nga xamante ne ñooñu gunge euh, ci 2015 bi yëpp mm-hmm. wan ñu lan mooy seen métier et que ndaw yi jëriñu si bu baax a baax Pape Cheikh voilà mu ngoog donc ñu ngi lay gërëm bu baax ci yeneen i mbir yoo xamante ni mën na gën a mën a ñaax xale yi ñu gën di liggéey parce que waxaat ko rek soxla bu teew moom ay nelaw faju ko. Pape ay nelaw faju ko te xam naa ne xale yi nelawatuñu euh, lu ma am na ñu naroon a ñëw nag malheureusement comme jour ouvrable lañ nekk dañu liggéey mais c'est des personnes qui ont eu la chance d'être recrutées via JobJob. Mm-hmm. Euh, ma leen encouragé bu baax di leen ñaanal di leen yokk jom et puis di ñaanal ñi nga amaguñu liggéey 2016 bi euh, ñoom ñëpp ñu am liggéey. Mm-hmm. voilà merci beaucoup Kia vous restez avec nous en tout cas ñun ñoo occupé place bi tey euh, ci 31 euh, décembre bi 2016 euh, c'est dans quelques minutes dañuy def fête bi ci nu mu gënee sobre dina am ay artistes yu ñëw woyal ñu quand même juste quelques petites chansons pour ñu féexal sunu ay xol waaye yéen tamit même bu fekkee jotu leen ñu en direct ibbi nañu téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 loxo fukk laa ko def yu baax yaa ngi nii nga ne loxo bi mbay baax na de. dafa riis waaw loxo bii riis na lool sax ñun nag comme dañu ne euh, feetu fin d'année bi dañu koy def ci nu mu gënee sobre euh, danoo fas yéene meew ci guddi gi waaye meew bi nag xamuñu kan moo ko war meew dañu koy puluf la seconde bay gar mi nee na mën na superviser ñu tegi bant après ñu xool ban euh, kan kuy génn ci télé bi mooy meew tey ci guddi yi ndooy baan mën na waaye il faut ñu puluf ko on ne pas encore waaye ñëpp ci lañu mën na dal dal ci kilifa gu mag ay bu dalee ci Alassane Samba Diop. Eh, Mbaye. Eh, ah, Alassane Samba Diop non Alassane moom xam naa ne. meew kuy génn ci télé bi rek. da ngay bokk ci ci ci tiire tiiroo vallée la tudd xaw ji fi jaafa jëf. ji fi dañu koy tiiroo vallée rek ci ku mu tombé rek kooku mooy meew meew meew bi tey ci guddi ba ci douze coups de minuit waaw amul problème quatre meew lay def kon. meew tukulóor mën na mën na zirik de. waaw mën na zirik de. la ilaha illallah. daal mbay fexe mu dal ci géwél yi da ngeen am meew mu far meew mu far <laughs> juste après publicité yi ñu àggali jotaay bi tey ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen en vous souhaite une très très bonne fin d'année euh, tey 31 décembre ngeen xëy ak beaucoup de beaucoup de beaucoup de pêche euh, xëy tamit ak bànneex bu bëri parce que bëgg nañu tey toute la journée euh, ngeen féexal seen i xol ñu ngi xalaat tamit ñi nekk ci hôpitaux yi dañuy njëkkee gërëm ñi ñi leen di faj muy docteurs yeeg sage-femme réunion avec vos patients ñu nekk ci hôpitaux yi feebar euh, toll nii 31 décembre nga tëdd ko euh, yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñun loolu la ñu bëgg et on reste convaincu que euh, muy clinique yi muy hôpitaux yi foo ci dem ci seen i dañuy taal tele yi di seetaan télévision Futur Média donc ñun li mbay mbay gar mi wax sànq rek ni dañuy def loo xam ni day jóge ci xol dugg ci seen i xol donc noonee ñu leen di jox bànneex yal na continuer même bu fekkee yéen a ngi nekk ci yenn ci ay hôpitaux juste après cette page de pub on se retrouve je rappelle que tey toute la journée ba ci 12 coups de minuit dañuy àndandoo ak yéen en direct pour jeexal 2015 ci place du souvenir